c'est la République des voleurs contre la République des voleurs. Répétez-le, et répétez pour nous dire que nous la République des voleurs contre la République des voleurs. La République des voleurs contre la République des voleurs. J'espère que Medina, que nous avons tout tour mësul féete ginnaaw dafa wane wan Sénégal yoon gi te moo tax ñu tànn démarré fii suñu campagne Médina dafa war a xàll yoon bi leeral Sénégal waaye Médina nag am ngeen pesum kanam boo xam ne yéen ko war fajal seen bopp xool leen seen yoon yi Médina xool leen seen stade bu ñu bi Médina xool leen seen école yi Médina xam ne dañ ko gris partout parce que ragal ñaaw def laaj leen borom boutique bi ñaata lay jaar comme recette ñaat leen ko ni amul dara malgré li mu fi yendoog fanaan moo tax boutique yu bëri dem nañu ci bëkk bi xale yi Medina waa Médine Sénégal dañ ñu mbéj kanam waa ji def ñu mbéj mbéjaat ñu bëgg le 24 mars bu ñuy ubbi grille stade porte stade Iba Mar Diop bi pour siffler lamb bi fekk Mor. ak kii taxandeeram bi ba le parce que dañ ko waroon bëre le 25 nag ñu porté maladie ak affaire bi seen sëriñ ne la baaxul waaye moom bëgg a bëre voté leen Thierno Alassane Sall république des valeurs